daf koy liggéey ci suuf waaye tey jii mi ngi nii taxaw ci ginnaaw mbooloo mi loolu nag lan lay wane mooy lii du problème politique waaye problème la boo xam ne problème mu humanité la damay xalaat Serigne Sidi Abdoulahat Mbacké mi nga xam ne ma nga ca Touba nga xam ne man bi ñuy xale ba nëga ni liñ dégg mooy du seetaan benn télé bu dul Walfadjri kooku boo coupé ab signalam mu toog une semaine gisul Walfadjri yaa ngi koy tooñ wala tooñoo ko te jàpp naa ne noonu ñu tooñe nag sëñ Sidi Abdou Lahad noonu la tooñe mboolem peuple Sénégal parce que peuple Sénégal Walfadjri mooy seen télé Babacar Diagne nag doomu aadama di ko fay Sidi Mouhamadou Lamine Niass mii mu jël ay daan teg ko ci kawam tey lu ëpp ñeenti téeméeri borom kër moo leen wutal am xëy ñuy xëy kon nag jàpp naa ne ki nga xam ne moom dafa lott ci mënul wutal xëy kenn kooku waruñu koo bàyyi muy jël ay daan di ko teg ci kaw jàmbaar ju mel ne Walfadjri bi ci des mooy RTS Pape Amadou Sy yaakaar naa moo yor ARTPM xaw ma nekkoon na journaliste ci RTS toog di représenté journal journal laa wax nag journal ba mu yàgg mu daan ne élément bii di jàll man mii di def journal maa doon def meeting. doon jàppale président Macky Sall na ngeen ko seetaan nga xam ne moom mii def journal mooy présenté ab meeting bu muy def kooku politicien la wala du politicien Racine Talla mi nga xam ne moom élection législative ak mooñ te daan ne affaire cohabitation bi ngeen di wax na ngeen ko bàyyi bu leen ko waxati daan ne na ngeen ñu déglu léegi ñu ngi def conférence de presse ñoo gañe loolu ngeen di jàllale te lam waxoon ca télé ba moo am kon RTS télé bu mag bi fi nekk mooy njëkk première télé bi dàqa fen askanu Sénégal jamais nu wax leen dëgg jaay doole ji nekk ci réew mi ceeb bi xiif gi lépp lu nekk senegal kiy seetaan RTS du ci yëg dara kon nag li Babacar Diagne li mu bëgg moo Macky Sall mën nañ koo am fépp te la Lamine Ndeye plus là wala fajri appel à am lu bëgg dinañ ko am ci fépp am ci ñëpp ndes wal fajiri ak seetaankata wal fajri yi mooy ñu bëgg a wane ne réew mi amul sis amul justice réew mi dañoo xiif Macky Sall lam ñu waxoon defu ko télé yi nag fii laa koy jeexale li tax wal fajri ñu coupé signalam une semaine yëpp léeg-léeg dañuy laal ci nguur gi léeg-léeg ñu wàcce nguur gi léeg-léeg dañuy wan askan wi lu lu leen di yee waaye léeg-léeg dañuy lëndëmal télé yi ngay taal doo ci fekk mbëri yuy kottante ak mbëri yu sànnante sées bëriwul télé yu bëri da ngay gis sax ñu naan émission bii dañ koy wan nu ñuy xooja ay jaljaleek nu ñuy xooja ay ferak ay cuuraay ënnal ak yooyu la ñuy wane Walfadjri nag 24 heures sur 24 lu yee doomu aadama lañ koy wan loolu moo tax arrangé wul waaye wal fajiri ca kanam fii lay des di réveillé sénégalais yi ba Macky Sall dem nguur gu fi mën a ñëwit fii ngay fekk walfu te fi nga koy bàyyi walfu alalu yàlla la kenn mënu koo xeex wasalaam. jërëjëf jërëjëf ba ñu def gis ñu tàccuwaat ko. ñoom benn loolu dafa nekk yow jërëjëf jërëjëf merci. moom ñu dalal. suñu naataango taskatu xibaar di fay membre de coordination des associations président des presse lisa bu fekkente ne mi ngi ci mbooloo mi ñu ñu yëkkati ci ay ne moo di di daal groupe Walfadjri ak jafe-jafe ñu fàttali bi Walfadjri doxul ci canal ak ci TNT te loolu yéen ñëpp moo leen fi indi mooy ñawlu ko naqarlu ko ba fu naqarlu yam ndax du yoon ci ab dëkk ab télévision di toog pendant sept jours du émettre fii ci Sénégal ñuy jaajëfal itam les députés yi nga xam ne ñoo faree ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ci kanam dinañ leen fi gis bu fekkente ne Lissa Faye voilà Ibrahima Lissa kon ñu jox la kàddu gi. a euh, Issa jërëjëf Ablaye euh, di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi. di sant vraiment ñi fi teew ñëpp vous êtes là pour la démocratie vous êtes là pour la liberté d'expression vous êtes là pour la liberté de presse et dañu bëgg a faagaagal Walf Fadjri waaye duñ ko nangu balaa ñuy faagaagal Walf Fadjri ci ñun lañuy jaar ba pare et di xamal leen ne euh, li ñu tëj Walf Fadjri sept jours dafa am juste aussi benn calcul boo xam ne def nañ ko. et il mu tombé ci loolu rek la et xam nañu ko et amul lenn lu ñu mën a reproché wal fajri ci couverture bi mu def ca Mbàkke boo xoolaatee la mu def lépp benn par benn ba mu jeex journalistiquement amul lu ñu mën a reproché wal fajri CNRA CNRA bu dee dafay wax que ne maanaam. CNRA bu dee dafay reproché Walfadjri que dafay maanaam jël ñoo xam ne ay xale lañu mais. Diouf jeexale wu ko nii Senghor jeexale wu ko nii ak Macky Sall bu fekkee nii nga ko ba jeexalee doo ko fekke mukk man maa la koy wax bu ko jeexalee nii la démocratie Sénégal la ko moom à l'époque coloniale y avait kon nag li nga jàpp tey ne loolu mooy defar moom moo lay defar wala moo lay yëkkati da nga juum c'est pas ça Macky recule li nga bëgg a aw du loolu boo jeexalee rafet ci rafet ci xamal ne ña fi indi woon loolu moo fi nekk euh, tey xamal ne que puudar. yéen a ngi dégg Sidi Lamine Niass. gars yi jaww nañu Sidi Lamine Niass. jaww nañu Sidi Lamine Niass. bu doon dund tey kenn du ñeme ñëw dëj euh, euh, kii yooyu kenn du ko ñeme. am na ñu ko jéemoon ci élection fii bi ñu ñëwee yéen lañ ci fekk yéen ñu dellu ginnaaw ñu daw. média alalu askan bi la média alalu askan bi la yéen yéen moo moom média yi et duñu nangu nag kenn ñëw naan lii ngeen di wax wala du wax lii liberté de la presse dafa nekk réalité et buñ ñu ko joxul dañ koy